mu ne ma ma cantoon nañ la démb ak tey lu jiitu lii. mu ne mu ngi lay ñaanal tamit bu baax a baax a baax. mu ne mu ngi lay ñaanal suñ borom gàttandu la ak tawféex ba li nga yéene yépp suñ borom may la kàttan boo ko àggalee. mu ne xam na sa taxawaay bu baax a baax. mu ne xelam mi dal na bu baax a baax. mu ne yitte rek moo am solo te yow xam na sa yitte bu baax a baax mu ne mi ngi lay sant di gërëm bu baax a baax mu ne dila ñaanal suñ borom àggale sa yéene mu ne fa tabaarakallaahu taxawaay bi gis naa ko bu baax a baax mu ne yitte ji ak yéene ji ak pëseeb bi dara wu ci lépp mat na jàllo mu ne xolam set na guy waaye xelam dal na waaye gën ngaa dolli yaakaaram mu ne yaakaar mit dolli ko na ci liggéey bu baax a baax mu ne xam nañ sa taxawaay ci wàllu yëpp mu ne jërëjëf